monsieur le ministre bala ñoo commencé ñun dañuy sant gërëm le président de la république de tous les sénégalais monsieur Macky Sall dama am benn kilifa gu mag mu ne ma yéen su ngeen amul ngoru gërëm président Macky Sall bàyyi ma yi nga xam ne ñoo doon takk di rooti ñoom danañ gërëm président Macky Sall ndax wàcceel na leen coon monsieur le ministre ma jógee département Kaffrine jóge région Kaffrine du ma la fa wax benn doléance ndax xam nga la fa xew ndax dangaa ñëw wàcc ci suuf ànd ak sa ñi nga xam ne ñoo lay jàppale ci liggéey bi ngeen ñëw def fa ay CRD woo maire yi waxtaan ak ñoom ñu wax leen seen ay doléance parce que ñun xam nañ ne population bi moo ñu teg benn doléance rek laa la ciy indil muy flex eau monsieur le ministre flex o mi ngi yàq seen liggéey du ma wax ci kaw di wax ci suuf président Macky Sall dafa liggéey lu rafet xam coono yi population yi di dund mu indi yërmande ak ndimbal yërmaande jooju ak ndimbal gi li ngeen signé ak Flex au respecté wuñ ko li ngeen war a def mooy ñoom nañu renoncé ngeen eggali ndax buñ soxlaa yéen la ñuy woo ngeen dikk di ko defar te dafay métti te nit ki nag mënul ñëw ci dëkk ramasser xaalis bi ñu war a jot yóbbu ko te dafa def dara ci dëkk ba wala li nit ñi soxla du leen ko defar Flex o mi ngi yàq seen liggéey monsieur le ministre projet de mobilisation des eaux pluviales bi nga xam ne tey mi ngi toll ci 36 milliards ñoo ngi ciy félicité le gouvernement du Sénégal di ko ñaan mu gaaw def mise en œuvre bi parce que soxla nañ ko muy la Nani Diabono monsieur le ministre maa ngi gërëm di sant monsieur Mamour Diallo mi nga xam ne moo yor ONAS fii ku fi wax dëgg rek te yàlla tax xam na ne dox ngeen jéego yu am a am solo nit nag bu fekkee da ñëw fekk yàqu-yàqu yi bari jafe-jafe yi bari nga nekk ci di liggéey dañ lay may battement may la temps liggéey yéen a ci yoon wi góorgóorlu leen monsieur le ministre maa ngi nuyu sama frère Lamine Diouf di nuyu joox bu ofoor am na disponibilité déglu nañu jàppale nañu damaa dégg fii sànq benn nuliste bu fi taxaw léegi di wax ci Kédougou ak Kidira waaye ba mu waxee ba pare ki nga xam ne suñ collègue maire la mu taxaw fii di Madina Faxa PDS la farut ak ñun waaye dafa taxaw rafetlu seen liggéey kon ñëpp war nañoo xam ne kooku dafa taxaw fii rek pour wax ak télé yi ak jaxase nit ñi ndax ñoom loolu lañ xam waaye bi mu la waxee ci commission ba ñuy liggéey ci commission dafa demoon bitim réew dem collecté ji ñu di ko defal ay 100 millions wasalaam.